nii nag nga mas lii de mas xam ci parce waaw ànd ba ànd ba cofee la ku ko lala ak noonu nga am rek gis naa ko yëg toog ci salle bi waaye parce que daa yéenee doxe dox di di dox bi ak jëf ah, waaw jëf naa ko danaa danaa danaa la samp sampin woo xam ni da nga oh. xam ni ànd na maag yow. jëf jëf nag ah, dëkk bii Madina ah, ma fi bëgg man wóor na ma ni ma. jëf jëf waaw ba tax na maa ngi yeesal lépp rek. maa ngi maa ngi sant. waaw dëgg yàlla coono bee ngeen daj boobaat léegi ba ñu jëm ci di setal kër di lay dëkk bi di di daal coono yi ngeen tegoo yëpp na ngeen xam ne dara wéeru ma ci. sëriñ bi na ngeen koy defal waaye moom na ma teg. ñaan sëriñ tubaab li ma fi añee moom jàppoon naa ne sax na moom waaw neex na bëri waaw. maa ngi lay sant bu baax. jërëjëf sant fekk naa lool alxames. waaw laa fi dellu si. sant waaw. alxames laa fi jàpp dellu si ndax léegi damaa bëgg alxames bu jot ma yedd si. fi laay añee reeree fi ñu ca def ak cant. yëngal dëkk bi. jërëjëf si dem. dimanche laa ko bëggoon. waaye dimanche yi day tombeek samedi ñu def cant bi dimanche bi may sol léeg-léeg ma ñëw léeg-léeg ma tëbal bu ko defee alxames nag nga xam ne day fekk muy doon bis boo xam euh, ay coono duma ko tegu damay sawar ñëw bu ma ñëwee ñu a def nag jàppe leen ko waaw maa ngi bëgg lool xaalis waaw kat loolu rek laa bëggoon a ndax daf woolu léegi doon ma wax ne foofu bëgg daal ñu waajal bés boo xam ne di ko woote cat. muy alxames boobu wax. loolu laa ko doon fàttaliwaale far far na ko cee waxaale. waaw moom nag suul moom ak Serigne Touba te moom rek lañu àndee moom. fii nii maa fi ci kër waaye seen bëgg ci yéen. seen yéene leen ndam. moom xam naa ci dara. Papa Ndiaye moom. moom moom. dama ko pratiquer ba xam ko ci pësteef ci jàmbaar te saa su moo ko fi ne dëkk bi ci bëree nooy te moom rek jàmbaaram fi mu ne dëkk bi wër na fépp fu ñu war a samp daara mu ngi fay samp daara mi ngi koy ànd nag mbokk tànn te kër gi su ne lu ñu fi woote ñu ngi ñëw ànd doo ko am te it mooy jiite sax liggéey bi jàmbaar la jàmbaar la joo xam te wër mu fekk la te fii mu ne kat nii ngeen di doxee rek la bu leen kenn dégg ci dara waaw ne ci liggéey bi rek bu leen wax ci lu jëm ci leneen lu dul ndigalu sëriñ bi sëñ bi nag moom gis na seen taxawaay dëgg na ci boobu ba tey seen togg yi sëñ bi ñuy togg yi ci ginnaaw togg waroon ngay doxal sax ba ci ginnaaw ba gis leen waaw ni ñu organisé wu ñii amul luñ mënul ñii boo boo bëggoon téeméeri mën a tey ñu togg xam nga ñu ngi nii nirul ko sonn. waaye boo bëggaatoon téeméeri mën a léegi léegi ñu def ko. barki Serigne Touba ñu taalaat toog ak téeméeri mën a. barki Serigne Touba. tax na sant naa leen man maa ngi koy seere eh, seen jàmbaar ak seen pëste. jërëjëf alxames rek. ñëpp

balaa ci ñu ne ci seen bi waaye waaw moom lañ moom lañ mbay mi sax waaw koy ko dañ ko wéyee dajale ñax nag jëf aw góor aw góor jëf jëf maa ngi nii sama xam nga gars yi jigéen moom

sant nañ bu baax. léeg-léeg léeg-léeg.